sababu ndaje bi di coalition du siècle bi nga xam ne ñëw na bokk ci liggéey bi ku nekk xam ne dañoo jëm ay élection législative 31 juillet président bëgg ci ndam rawatina fii ci Touba ndax bokkoon naa ci ñi teewoon ci audience ba fekkee waxtaan bi kon ñun ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom di ko liggéeyal lu mat fukki at ak ñaar bu ñu sañoon Touba day am ndam fu ñu toll kon suñu gisee comme niñ koy waxee euh, léeg-léeg suñu général Serigne Modou Kara ñëw appuyer liggéey bi am taxawaay bu ci taxaw ci coalition du siècle dañ koy rafetlu di ko ànd ak moom di ko ci sant nag di ci rafet njort nag bu baax ndax mi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ñu koy nuyu di nuyu équipe bi mu àndal yëpp di ko wax ne suñu xel dal na ñun waa Touba ñun ñi nga xam ne ay doomu Touba lañ di dëkk Touba juddoo Touba yàgg ci terrain bi di ci liggéey te xëy na ñu ngi ciy am résultat waaye bi ñu bëgg dëgg amuñu ko kon bu ñu ko gisee suñu wet suñu xel dina dal ci loolu ñuy ñaan yàlla rek liggéey bi mu sumb ànd ko ñëpp rawatina taalibe Serigne Touba yàlla may ko ci ndam may ñu ci ndam ñun ñëpp ak sëñ Saliou mii nga xam ne moom ko ànd ak moom ba incha allah 31 juillet balaa di lépp leer nañ te rafet naa ci njot ndax xaaruñu ba campagne ndax nit ki bu fekkee ne yaa ngi jege askan bi di ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom foog naa ni balaa jouru élection mën ngaa boo defee sa sondage mën na ngaa mën ngaa xam li nga liggéey te liggéey bi door na te am nañ ci yaakaar kon ñi ngi ko ci remercier di ko ci sant kon sama mbokki jigéen ñi maa ngi leen di soññaat bu baax di leen wan ne xeex bi lenn rek la bis bu élection yi ñëwee ku ci nekk ci yéen bu xëyee jóg ndànk dem teel a dem voté ji bu bu yeggee xàmmee na bi muy voté muy carte marron beige bi parce que nag président rafet nañ njot ne dina am majorité assemblée waaye nag rafet nañ jot ne dina gagné département Mbacké rawatina commune Touba ñun waa Touba dañoo bëgg balaa midi mu leer naññ ne président gagné na fii kon ñu ngi leen ciy ñaaxaat bu baax di leen tàllal loxo bu baax di leen wan ne ku ci nekk na jàppe boppam responsable boo xamante ni moom moo boot ñeneen ci ginnaaw war a ànd ak ñoom liggéey boobu. li waral woote bi tey nag. Euh, mooy li ñu wax sànq rek muy jataay boo xam ni li ko sabab mooy jataayu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni muy ndigal loo xam ne dafa jóge ci moom ñëw ci man ñu gisante euh, ci audience bu yaatu ñu waxtaan mu wax ma ay bëgg-bëggam wax ma ay yéeneem ju mu am ci réew mi am ko ci président de la république euh, son excellence monsieur président Macky Sall ñu rafetlu loola ànd ak moom aussi ci liggéey bi bi ñu waxee ba tënk loola ñu jógit uniquement ñëw ci suñu biir département am équipe boo xam ne dañoo ànd ak ñoom liggéey bi ñu dugg ci son yi sensibiliser nit ñi sones bi ak jeunes yi ak suñu yaay ak suñu papa yi waxtaan ak ñoom ñu wéyal benn audience euh, ci moom Daaru Moussi ñu wan ko fa macha allah loo xam ne sedd na xolam te xelam dal na lépp jëm ci coalition de siècle euh, mu rafetlu ko ci kanamu xalifa bi Serigne Khadim ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ni ko Saliou mii kat dafa am lu ma ko santoon di ko liggéey lu tax ci def liggéey bu mucc ayib te loolu la ñu continuer di fii boobu ba léegi moo tax it ñu woote yenn ci ay responsable yoo xam ne daje woon nañ ak ñoom amit ñoo xam ne ñëw nañu bees fekk se nañ ñu ndax dégg nañ engagement bi nga xam ne jël nañ ko ci dëkk bi euh, pour war cee liggéey xool nu ñuy def ba njiitu réew mi mën a gagné élection yii di ñëw muy élection législative mu gañe ko largement loolu mooy li nga xam ne moo ñu tax a jóg te it lañ nekk ci la ñuy liggéey ñu ngi ci incha allah rabbi bu ngeen gisee SONESBET ñu ñëw tey ñooy présenté wu muy association ak daayira ñu wane wu ci tiset yi nataal yi noonu lañ fas yéene liggéey ci biir département bi muy daañ taxawal ay commission yoo xam ne danañ dugg ci biir euh, biir commune bi moo xam as euh, moo xam quartier yi ñu dem seeti leen ci marché yi ak délégué de quartier yeeg ñi nga xam ne dañu nekk ci biir dëkk bi yëpp ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser leen waxal wax leen lan mooy coalition de siècle li ko tax a jóg ak fi mu jëm mooy fexe ba gunge njiitu réew mi pour mu mën a gagné élection législative yi incha allah rabbi te it am nañ ci yaakaar am nañ ci rafet njort fu ñu teg euh, gaje gi incha dañ ci rafet njort ndax sëñ bi bi ñu bi ñu engagé woo ak sëñ bi nee naa la ñi ñu seeti ñu ëpp ñi ay taalibeem lañ ñii ay soppeem lañ te ay responsable lañ yoo xam ni am na lu ñu représenté ci dëkk bi am na aussi loo xam ne dañ ko man du ma critiquer kenn ay jàmbaar ñi ngi ci dëkk bi ñoo xam ne ñi ngi doon liggéeyal njiitu réew mi waaye am na ñoo xam ni population bi la ñi ngi ci biti bu ñu gis ñooñu duñu leen dégg te dañoo war sol seeni daal dem seeti leen waxtaan ak ñoom xool lay seeni jafe-jafe ñu saafara ko ñun day ci noonu lañ logique boobu lañ bëgg fas yéene dox incha allah rabbi danañ leen jox ay oto li war ci ñoom lépp danañ ko def ñu dugg ci département bi lépp bàyyiwuñu kenn lépp lu ñu mën daal loo xam ne bu ñu ko defee danañu jox seen électeur danañ ko def insha allah rabbi parce que président Macky Sall dafa war a gañe Touba ndax def na fi lu tax mu war ko gañe li mu fi def amul benn président de la république bu ko fi def du wax ci santé du ma wax ci éducation bari na lu mu fi def loo xam ne ñëpp teg nañ seen bët parce que man mii di waxee damay liggéey ci côté social mën naa lu bari loo xam ne grâce à président Macky Sall tey bu yaatalutoon loolu loolu du ma kon nag war nañ ko jàppale ñun population Touba loolu la Serigne Modou Kara général Bamba di dox ñu nit moom lañuy ñuy dox ànd ak moom parce que doomi dëkk bi lañ am na lu ñu représenté ci dëkk bi am na lu ñu mën ci dëkk bi heure bu ñu wootee nit danañ ñu wuy si ndax lu ñu séq na lu ñu def ci ñoom ñu xam sa soxla man sëñ Saliou Ndiaye la ma ci mën danaa jóg uniquement pour def looloo tax lii ma xar lépp naa ko def incha allah rabbi pour de la république mën a gagné département Mbacké bi loolu daal ci te ci ñuy dox seen yi danañ def ay équipe yoo xam ne danañu dugg ci quartier yi kooku moom pare nañ pour ñoom ñëpp dañ leen fay lépp lu ñu mën ñu def ko incha allah rabi pour li ñu bëgg ñu mën ko am ci département bi. dana ci indi changement parce que sëñ Modou kilifa la te général am na lu mu mën ci dëkk bi déggoo li ma la wax sànq nee naa la bari na kilifa yoo xam ba ma leen seetee àgg leen information bi dañ ah ñun de dañoo bëgg sëñ Modou Kara lañ lu sëñ Modou Kara bëgg loola la def am na ñoo xam ne ñi ngi fi ay mbootaay lañ yor ñii yor ay regroupement te dañoo bëgg sëñ Modou Kara sopp ko kon sëñ Modou am na lu mu ci a sens am na lu mu ci parce que ñu ngi fekk fii sama indi la damaa woote rek ñu wuy si ma xaj na bu ma ko yaatu loon mën na ëpp li mais dañu woote rek pour leeral nit ñi fi ñu jëm ak euh, coalition la Sekkal ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bu ñu ko defee danañ sensé lu bëree bëri ci departement bi fekk fi suñu jàmbaar yi nga xam ne ñu ngi fi woon comme ku mel soxna Mame Diarra ñeneen ñi ngi leen fekk du ñu critiqué benn liste nag liste bi nu mu ñëwee rek incha allah ko président décidé dañuy ànd ak ñoom battre campagne ñi ñu investir ku mu mën a doon moo xam ku mu mën a doon rek ñun daañu def ngir président Macky Sall def ngir jëmi Cheikh Amadou Mbacké incha allah yaakaar naa daal bu ñu dajee waxtaan kenn ku nekk la nga mën ak sa yéene sa xalaat lépp nga indi ko ñu bay xiroo beeg ŋaayoo bi ànd joxante loxo li ñu bëgg danañ ko am. parce que Macky Sall war na fi mën a li koy waral lépp mooy xiroo beeg ŋaayoo bi rek ak jàppante yeeg bàyyi yooyu bu ñu ko bàyyi rek dañ gañ largement Macky nit ñi ko bëgg kenn bañu kenn bañu ko Touba bañu ko de dañu ñàkk xam réellement parce que responsable li ñu war a def bu ko def dugg ci askan wi wax ak ñoom delloosi leen danañ leen delloosi bu ñu leen delloosi rek liñ bëgg ko danañ jox seen insha liñ pertoon fi dañ koy gagné insha allah te ñu ngi si liñ ci mën lépp danañ ko def la coalition de siècle bu Cheikh Ahmadou Mbacké Noreyni ñëw na dugg fii ci biir département bi lépp lu ko war ci dajale ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di liggéey danañ ko def incha allah rabbi pour ñu joxante loxo pour ñu ànd liggéey man sëñ Saliou Ndiaye lu ma ci mën danaa ko def te ci ndigalu sëñ bi laa koy defee incha allah rabbi nee ma képp koo gis daal mu am faneen fu mu féete wala mu doxee naneen nu bokk rek loolu wala mu mer nañu ko seeti waxtaan ak moom delloosi ko lépp lu aaji loolu danañ ko def ci kattanu yàlla waaw loolu moom ñu ngi ciy dox te jàpp naa ne jubóo bi am na de parce que ñoo bokk lu ñu bëgg audience bi am na lu bëree bëri xëj na nag wax moom mënul ñàkk loolu ak parti politique ñoo ànd ak association lépp daal incha allah bi ngeen ñaan ñu yàlla may ñun ndam lu sedd nañ ci danañ si jógee incha allah rabi lañ ci mën rek danañ ko def ci kàttanu yàlla incha allah. coalition du siècle li ko tax a jóg mooy li APR ñàkkoon fii si Touba ak département bi mu defar ko li daan xañ APR ndam si département bi coalition du siècle looloo ko tax a jóg. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni loolu moo ko tax a jóg loolu la deseel président Macky Sall pour war ko ko liggéeyal commencé ko si élection euh, législative yi ñu jub ànd ko ak Serigne Saliou Ndiaye mi nga xam ne ku ne xam na ko si social. ndax mbooloo mi yëpp am mbooloom lañ waaye euh, yoratu leen da leen a jox lépp ci coalition du siècle teg leen si loxo si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni loolu moo waral liggéey bi nii te liggéey bi day soog a ndax yaakaar naa audience bi la 8 mais la la gisante woon ak ci Ahmadou Kara le 9 la commencé dugg ci terrain bi yaakaar naa dem nañ fu nekk si département bi ak département de Diourbel ba Bambey foofu la liggéey bi yemagum ak daar Mouhty te day gën a continuer ba le 31 juillet mu jël euh, ndam li teg ko ci loxo APR teg ko ci loxo président Macky Sall avec coalition du siècle incha allah.